kooku day mbugal mu tar mu natt mi koy xaar ma tax ko yonte bi sax mu jugal mu dumuwu ko sax benn yoon mu jeex dañ ko bàyyi yàlla rek walladi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim borom bi subhanahu wa ci teg muy lu teewoon bi ngeen déggee duur di ay góor ak ñi gëm yàlla jigéen jortu ci seen bopp aw yiw lawla sami'tumuhu wanna al mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim xayra duñ yem ci de waaye dañ naan lii aw duur la wu leer wa qaalu haada ifku mubiin ndeke loolu mooy taxawaayu ab jullit ci bu déggee ñu tuumaal mbokkum jullitam looy wax boo déggee xibaar bi mooy bu doon man du ma ko def abu ayub daa nekk soxnaam ummu ayub soxnaam ne ko waaw dégg nga la ñuy wax a ndey sunu ndey mu ne ko dégg naa ko de waaye ndax yow loolu da ko def mu ne ko déedéet mu ne ko Aïcha la gën Allah moo la gën foofu man jàpp nga danaa ko def mu ne dee mu ne ko moom a gën foofu borom bi nee na xam ngeen li jaaroon ci yéen mooy ba ngeen déggee lii ngeen jot ci seen bopp xool ngeen jot ngeen jot ci keneen de ndax keneen mooy yow ظن المؤمنون والمؤمنات بغيرهم دنا بانفسهم خيرا دا جول نيب بن لاي وقالوا هذا اسم مبين يين ني واخ لي لو تيوون نين اندي نينت سيده لولا جاءوا عليه باربعه شهداء نبونو اندي ووت نينت سيده يو فيرندل لي ني واخ ньоญو فا يالا اي سن كات لاي دونتي مان ما ام ني واخون دغ ني واي فا يالا مو اي فن كات لاي ناخ اتبي يالا لولا تي تيون wa ulaika inda allahi humul kaadibuun mu indiwaat waaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatullah loolu baamu na ci baamu na ci saar yi lu bëree bëri budul koo nag nga ne loolu yàlla ak yërmandeem kon li ngeen doon xuus nii di ci wax guddeeg bëccëg mbugal mu met da leen ci fekk walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu fi dunya wal axira la massakum fi ma afadtum fihi azabun azim kon mbugal mu rëy dana leen fekk ci li nga xam ne moom ngeen doon xuus keroog ngeen di ŋawti ŋawtee xibaar bi id talaqawnahu bi alsinatikum di wax ci seen gili ñi loo xam ne amu leen ci benn xam-xam wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm ngeen defe ne loolu daa waya yàlla rëyal na ko lool wa taxsibunahu hayyina huwa inda allahi azim lu teewoon bi ngeen déggee xibaar bi ngeen ne yellut jaaduwul ci nun nuy wax ci lu mel nii ku toll ne sunu ndey Aïcha di soxna sallallahu alayhi wa sallam lu teewoon ni yàlla ne lu teewoon ba ngeen déggee xibaar bi ngeen ne jaadu wut ci nun nuy wax ci lu mel ni qultu maa yakunu lana an natakallam bi hada subhanak ngeen jombale yàlla subhanahu wa taala muy booleeg ab yonente ku mel ni hada buhtaan azim li duru la loolu la yàlla wax ne moom ngeen waroon a wax mu ne yàlla nag mi ngi leen di waar moytu leen di dellooti ci lu mel nii ya'izukum allahu an ta'udu li mithlihi abadan waaye yàlla yemut ci di leen waar waaye mi di leeral ay aayaam mbokk yàlla ci boppam moonuy leeral ay laayaam fa maada baada bayaanillahi yàlla mooy leeral booy tëj suuratu nisa dana yubayinu llahu lakum an tadillu yàlla da leen di leeral ngir bañ ngeen réer yuridu llahu li lakum alquran bayaan la hada bayaanu linnaas wa yubayinu llahu lakum al ayat wallahu alimun hakim yàlla ku xereñ la waaye xam la mu tekki ne ñi nga xam ne ndeysaan dañoo am bëgg-bëggu ñaawteef di siiw ci ñi gëm yàlla ah ñooñu nañ ne gëndi ko mbugalum yàlla àddina ak ñi nga xam ne waxuma ñu ñu ciy dox de dañ koo bëgg rek waxuma ñu ciy dox de bëgg gi ñu ko bëgg ci seen xol rek mooy ñu ngi ne woon siiw dégg ci ku gëm yàlla lu ñaaw ci moom hmm. lii nag lu raglu la am na ñoo xam ne nee nañu woon siiw dégg ci diw sàngam lu ñaaw ñi bëgg loolu borom bi nee na nañ neggandiku mbugal àddina ak alaxira inna alladina yuhibbuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alim fi dunia wal mu ne yàlla moo xam waaye yéen xamu leen wallahu yaalamu wa antum laa taalamuun ñëwaat na wala wala fadlullah aleykum wa rahmatuhu tey bu dul koo nag nga ne lu yàlla yërmaneem kon dana doy waar lool tey bu dul koo nag nga ne lu yàlla yërmaneem tey budul koo nag ne yàlla day ku ñeewante jaam yi day ku leen yërëm wa anna allaha raufur rahim yaa ayyuha alladina amanu laa tattabiu xutuwaat ash-shaytaan yéen ñu gën yàlla saytaane fi leen di jaarloo mooy jéegoom yii muy sëlam yii moytu leen ko bu leen topp sëli saytaane yi laa tattabiu xutuwaati cheytaan bokk na ci jax-jaxeel yi bokk na ci ñaaw njort yi yépp ci xutuwaatu cheytaan la bokk bokk na ci toog ay àndandoo yoo xam ne la wax xamuñ ca dara ku top yoon yooyu nga xamne ay sël la koy tuddé wa may yattani xutuwaati shaytan shaytan de mom li mo am ci mom fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar sëñ Ousmane walaw laa fa bëla ñëwaat na walaw laa fadlullahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah <laughs> borom bi nee na bu dul ko nag saa ngëneel ak saa yërmaane kenn ci yéen du sell kenn ci yéen du sell ndax yi mën a tëral yi mën a taqal bakkan kenn xamul nu mu toll am na mujtama boo xam ne boo fa dee dund yàlla seppi la laaloo biddaa seppi la laaloo bakkaar seppi la laaloo nangam ak nangam xamal ne du ci yow de balillahu yuzakki man yasha walaw la fadlullahi alayka wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allah yuzakki man yasha yàlla na yàlla sellal waay amiin yàlla na yàlla sellal suñu bakkan yi ku baax ka salaa daan wax naan allahuma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha ko rek mën a ñaan ñaani sallallahu alayhi yooyu dafa mat a taxaw di xool allahuma atina fi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bakkan bi yaa ko yilif yaay boroom kon sellal ko bu la yàlla seetaanee doo sell yàlla moo la bëgg مرافتل نغم تي ساخول حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم مولا باج لو كفر وكره اليكم الكفر باج لولا ген توب ول بوخا باج لولا اك عصيان اولئك هم الراشدون قول نكو دي فضل من الله ونعمه لول غني لو يال رك لا اك يربانيم والله اكثر جامونه جي نيم تدي كو يالا ديمبلي ووت دوخل لول walakin allaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim yàlla ku mën a dégg la lépp bi yépp lay dégg waaye ku xam lépp la umpalewut dara yàlla amut lum gën a dégg ca la ca mel na yow mi nga xam ne day am loo xam ne ni nga ko déggee mooy gën a neex dégg bi mooy gën a neex ci ni ngay déggee leneen léegi nga may may may may la ma diglu may la ma tuuti ma dégg ma diglu sawaa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi hmm. wa man huwa mustaxfin billayli wa saaribun binnahaar innahu yaalamu jahra wa ma yaxfa yaalamu sirra wa axfa yàlla dara ump ko loolu nag lu day war la yàlla dara ump ko lu day war la li muy tekk mooy sa dara ump ko yow te wallaay boo seetloo sa dund xam ne yàlla dara ump ko ci sa jëmm boo ko seetloo tuuti rek da nga ko xam borom bi nu mu ci teg ñëw ndeysaan wax ak Seydina Abubakar mu baax moom nga xam ne mooy ki gën ci xeeti gannaaw sallallahu alayhi wa sallam ah gannaaw mis waxoon na ci doom ji te waxoon rafetut te moo yoroonub dundam te doomu ndeyam la woon mu ne léegi moom bu ma ko joxut bu ma ko joxutul mu jeex bu ma ko joxutul mu jeex borom bi ne déet waay déet bul def loolu waay <laughs> déet waay wala bu bum giñ ulul fadli ñi nga xam ne dañoo am ngëneel ci wàllu jikko jikko wa saa yàlla ubbil leen ay bunt ci wàllu wërsëg ñooñu buñ giñ mukk ay yutu ñuy bañ a joxati muy allah yutu ñi nga xam ne dañ leen a jege ci bopp ulil ñi nga xam ne yemuñ ci jege leen ci bokk waaye ñu gàddaayoon lañ jóge Makka ñëw Madina doon ay masaakiin nañ jéggale nañ jëllale wal yaafu wal yasaxu xanaa yéen bëggu leen yàlla jéggal leen ala tuhibuuna an yaxfira allahu lakum laa ilaha illa allah subhanallah subhanallah yàlla bëgg mu jégale sëñ bi yàlla bëgg mu jégale borom xool ni muy waxee ak Seydina Abubakar fii na baale na jëllale xanaa bëggul yàlla baal ko alaa tuhibbuna an yaghfira allahu lakum wallahu ghafurur rahim xoolal wallahu ghafur ji moo ne ñëwut ji wal yaghfiru de wal yaafu moo ci ñëw wal yasaxu amut wal yaghfiru waaye borom bi la fa bi muy indi bi muy tëj laaya ji xam nañ ne wal yaghfiru dina dugal ji biir mun al jazaa'u min jinsil amal benn barab ci alxuraan la yàlla dajale ñett yépp ci kër ci sa min azwajikum wa awladikum lakum dane fa talliquhum la wax <laughs> déedéet du loolu de in taafu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha gafurun rahim li de ku ko yore kër kër ah. ko du وإن تغفروا وتصفحوا وإن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ما هو سالو دا دو دفنا دجنا وانا ني نخول الفعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل سلايدي وإن تغفروا غفر يغفر فعل يفعل وتصفحوا فعل يفع يفعل صفح يصفح wa in taafu afa yaafu mooy faala yafulu ñett yëpp dajale ci laay jooju wa in taafu wa tasfaxu wa taxfiru fa inna allaha gafuru rahim moo boo xam ne da ko yoral ab dundam te jegeñaaleem ba xëy def ko lu ñaaw mu bëgg a bàyyi lu baax lam ko doon defal kan la bu dee am na ci suñ biir bu jugee ci jotaay bi na delluwaat ci lu baax lam doon def yàlla nee na bu leen ma doxale seen digganteeg def lu baax wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna annaas bu kenn ne dama giñoon ne du ma def nangam demal kafaara sa ngiñ li te konte ci lu baax li doon def demal kafaara sa ngiñ li ndax wax moom jox ko lu baax moo gën kon demal nga kafaara sa ngiñ li te continuer lu baax la nga doon def te moo ne day kilifa gu baax la muy Seydina Abubakar lii day wane rek ne nit nit rek la nit nit rek la léeg-léeg nga gis ku baax waaye léeg-léeg am lu ko gaar waaye bu dee jàng alxuraanul karim te koy setantal léegi mu jóge ca loola jàll ca la ca def alxuraan moom loolooy loolooy mbiram moom alxuraan loolooy mbiram mooy lu baax lu ne la ca gën a baax fa la lay yóbbu ma jox la misaal ci alxuraan ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل كفايو جناب بن لطوني كن أموت لهم لوح ويحول الله جدك فمن عفا وأصلح فأجره على الله خلل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به لم جدك ولئن صبرتم له خير للصابرين الله su ngeen muñoon day moo gën ci yéen wala in la wa xayru li sabirin in tubdu xayran aw tuxfu aw taafu an suu fa inna kaana afuwan qadira al afuwul qadir mooy koo xam bi muy baale fekk na mën naa fayu bi muy baale fekk na moo mën naa fayu lool mi ngi mel ne maam wallahi laqad atharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiba la tasriba alaykum al yawma yaxfiru allahu lakum wa arhamu rahimin bàyyi leen loolu loolu leneen la te ñi muy waxal ñoo ko dugaloon ca ca bënn ga al yawma yaxfiru allahu lakum wa arhamu rahimin dem na ba yàgg sax mu naan maa ngi sant yàlla wa jaa bikum min as-sijni la waxa min al badwi bu ne min min al jubbi dama boo waxoon min al jubbi rek ñi moom duñ mën a añ tey duñ mën a añ ndax ñoo ko ca dugaloon waaye dana mën a siñ ni wa jaa bikum min al badi min badi an nazaga cheytaanu bayni bay bayna ixwati seytaan rek moo doon yàq sama ak ñoom sama seytaan dong la woon du leneen ndax yéen loolu yéen a ngi koy def am na ñoo xam ne dañuy ŋànk mer laa wax ay ñetti at ëpp na mer yàbbi rek bàyyi nee na wolof njaay neena lu way den ci ñeen fukki fan mu amal la njariñ mu ne bam des mer fukki at boko ko du la amal njariñ yabbi rek mer yabbi rek wal kaazimina al wal aafina anil naas wallahu yuhibbul muhsinin neñu jamba da yor lu tàng këpp ko sangam ba da koy jitu ci laaje ne ko wal kaazimina al mu ne ko kazamtu ghayzi mu ne wal aafina anin naas mu ne ko afawtu anki mu ne wallahu yuhibbul muhsini mu ne ko aataqtu ah ki goodeel la mën ngaa na ñi wan mer ak ñi jéggal nit ñi bu teg ci ne yàlla ku bëgg ñi rafetal la yàlla dafa bëgg kuy rafetal yàlla dafa bëgg kuy rafetal koo xam ne fii maanaam lu la waay mën a def da koy jéggal ngir yàlla di séntu njéggalu bu yàlla ndax al jazaaw min jinsil amal ndegam yaay baal ab jaam te fekk sax aaja woo nga ko fa kayfa yàlla mi la wut yàlla inna laa la ganiyun anil alamin mooy yàlla yi du ko wàññi dara topp yàlla yi du ko yokku dara ndegam yow yaay baal koo xam ne li nga koy baalee mën nga ko ko topp te sa àq la nga bàyyi ko fa kayfa yàlla allahumma innaka afuwun lu ci doog tuhibbul afwa tuhibbul afwa mooy man loolu moo ci itteel tuhibbul afwa jo moo ci itteel mooy da ngaa bëgg ñu jégale yàlla daa bëgg ñu jégale da ko bëgg lool sax moo tax jullit day laab xol jullit day set day laab bari yërmande bari ak ñeewante bu ko waay yoreelee dara sax yenn waaye nee na ma daa am ku ma yoreel ma di ko woo téléphone naan ko waaw ana kii mu ne ma nga baal ma rek fan yii daa xaw a kii lool ma di ko jàngal bu laay ndekete laay du ma bàyyi man daal laay joo ko doon jàng mooy wa in kaana du usra fa nadira ila maysura ma ne ma ne ko yàlla day nee na maanaam ndegam dangaa nekk ci ay xat-xat nañ la bàyyi ma gis ne laay jeexut. ah jeexut ma ne ko far ko bàyyi far ko bàyyi far ko wa anta saddahu xayrun lakum xool xool waaw du la bàyyi yàlla da la yéegal da la yéegal ci mbaax da ngay gis koo xam lañ ko def danga naan kii bu fayoon mu far jéggale ngir yàlla sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy njiitul jéggalekat yi xoolal ba mu ñëwee Màkka maa tazunnuuna anni faa'ilun bikum lu mu leen wax idhabu fa antum tulaqa loolu nag ñu bëree bëri ñu dañ ko dañ ko xaw a manqué tuuti am na ñoo xam ne ci biir kër yi ngeen baal ma sunu mbokk soxna yi léeg ñu xaw a denc dara xaw dañ koy denc mu yàgg lool sax léeg ñoom nag xamal lu tax ñu ma dañ ak ñu mën a denc dara loolu xaw lu ko ndax bu ngeen amee problème rek ñu indi yépp dañ xam duñ fàtte ñoom man man lool li ma yàlla dañ maa jaaxal ci buntu boobu duñ fàtte. waaw xam nga bis sangam itam defoon na fi nangam keroog itam ba ma ciy def keroog it yépp la ñuy def loolu nag dafa metti sëñ bi. xanaa xanaa nga bàyyi ci def nag waaye yëpp nga indiloo ah xam néew doole gi nag moo koy waral mooy dañuy denc yooyu dañoo néew doole moo tax dañuy denc bu ñu amee occasion rek jeex na dañ lay wax a wax ba nga xam ne waa waa jaax waa jaax na lee jaax da leen baale di jéggalee mbokki jullit yi sunu borom yàlla subhaanahu wa taala bi mu jugee ci ji mu dellu ci ñi nga xam ne dañoo tuumaal nag ku ñu wërta tuumaal mooy ku sëñewu koo xam ne ku seleng lu jaan la alxaafilaat mooy koo xam ne yëgut lu xew lii ngeen di wax ci moom da koo yëgut sax far sunu yaay Aïcha yëgutoon sax ne lii xew na xelam sax tokk ci lii ngeen di wax yarmuuna al muhsanaat al gaafilaat al muminaat ñooñu lu'inu fi dunya wal axira rëbb leen àddina ak alaxira wa lahum azabun azim kañ keroog seen làmmiñ di leen seede si yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim keroog loxo yi di seedeel nit naan yàlla loxo yaay wax de du nit ki mooy wax de loxo bi mooy wax wa arjuluhum tànk mooy wax lan lay wax bi ma kaanu yaamaluun laa ilaha illallah ah lii dana doy waar sëñ bi nañ ca xalaat rek lii de sëñ bi doy na waar lool ah man a làmmiñ ñu muy wax ak yàlla naan bi sàngam maa wax nangam ak nangam loxo yuy wax yàlla naan ko bi sàngam ak sàngam maa wax maa def nangam maa laal nangam tànk yu naan bi sàngam maa demoon sàngam loolu de ku ci xalaatu doo nit loolu ku ci xalaatu doo nit de sunu cër yi ëllëg yowmal qiyaam day wax borom bi day tëj sunu làmmiñ ndax damoo mën a wax te dañoo mën a lay al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun keroog laay laa leen di matalal seenu fay muy ak dëgg fayug dëgg ga keroog laa leen koy matalal yawma idin yuwaffihimullahu diinahum bi maanaa jazaahumul xaq keroog ngeen di xam ne yàlla rek ay dëgg wa yaalamuuna anna allaha huwa alxaqul mubin la ilaha illa allah waaw keroog lu waaye doon jaay te dug ragal yàlla day lamu keroog lu waaye doon jaay te dug ragal yàlla day lambu laa wax تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى يلا تقوى ما هو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه تقوى نيكو يالا فوري سي تي القران مسما غيس لو مسما غيس لو مل نون يالا خامنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ولقد وفينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تقوا الله تقوى mooy jëfe ndigal yàlla yi te bàyyi tere yàlla yi subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla yombal borom bi jóge ci ne alxabisaatu lil xabisiin wal xabisuuna lil xabisaat wa tayibaatu li tayibiin wa tayibuuna li tayibaat ulaika mubarrauna mimma yaquluun lahum magfiratu wa rizqun karim alxabisaatu mën ngaa wax ne jëf yu bon yi wax yu bon yi jikko yu bon yi ñamu méngool xeetoo ak ñoom mooy ñu bon ñi alxabisaatu lil xabisiin ñu bon ñooñu ñoo ak yu bon yooyu wal xabisuuna lil xabisaat yu tey yi laa ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar wax baax jëpp dugg na ci ab ñan ñoo ñan la méngoon li tayyibiin ñu teey ñi laab ci seen biir alladina tatawaffaahumul malaa'ikatu tayyibiin ñooñu li tayyibaat kàddu yu baax yi wa hudu ila tayyib min al qawl am na ñooñ lu baax rekk la ñu mën a wax lu baax rek la ñu mën a def lu baax rek lañuy ñu mën a xalaat wala nga ne jigéen ñu bon ñi ñañ xeetool mooy góor ñu bon ñi te sunu ndey Aïcha du ku bon kon du xeetoo ak sallallahu alayhi wa su doon ku bon la du xeetoo ak alayhi salatu salaam li muy tekk mooy kon day ku teey day ku baax moo tax mu méngoo ak yonente bi alayhi salatu salaam nag laay ji nag lu garaaw a garaaw la loolu <laughs> laay ji day xool alxabisaat nim mu ñàngee rek baat bi ci boppam seetlu leen baat bi rek ñi xool li mu wuteeg ab fay buun li baat bi neexee qul laa yastawi alxabiisu wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabiis الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث mooy yu bon yi ñu bon ñee yi nekk yu baax yi ñu baax ñee ciy nekk xam nga baal waat yu bon yëpp ñu bon ñee cay nekk ñoo koy taxaw ñoo koy jàllale ku ngeen gis ci internet bii muy wax yu bono bono bono bono bon day ko bon moo tax ku ngeen bi gis muy wax yu baax a baax a baax day ko baax ndab lu nekk kay la ca biir lay lan ay seet lay seet mënoo joxe loo amut ndeysaan genn góor daa am ku jàkkaarloo ak moom wax lu doy waar gëdd góor gi ne ko sa tàngoor wii day du ko dindi ndax dañ la ko mooñee dañ la ko mooñee mhm. waaye mënoo koo dindi ndax dañ ma ko mooñee ah. ne ko nag xam naa ne sa tàngoor wi man danaa ko mat a soxla saa sago si da nga koo mas a soxla ne cel ñuy dem di dem ba yàgg waa ji ñëwaat ne ko sëñ bii lag ma waxoon day ne da danaa mas a soxla sa sago si tey ji soxla daal yàlla xam na ko góor gi ànd ak moom lijjanti loola ñëw toogaat kenn ku nekk ak nañ ko mooñee kullun muyassarun limaa xuliqa lahu léeg-léeg nit def lu bon wallahi lu bon loolee boo toppee reen ba day jóge bu sori day jóge bu sori maam Mariam lan lañ ko wax yaa uxta Haarun yow day maa kaana abuki imra'a saw wa maa kaanat ummuki bagiya lii nu mën amee loolu liñ ci dégg mooy kon law kaana abuhum ra'a say sow wa kaanat ummuha bagiya kon lii du nekk lu bett kenn du bett kenn yàlla dafa maandu wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida wallahi ku yor am xel di xalaat tey gis lii xew da xam ne nii rek la mën a demee nii rek la mën a demee mënut mënut demee neneen borom bi subhaanahu wa bokk jullit yi nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen dugg ci kër yi nga xam ne duñ seeni kër lu may da ngeen yëg lu nuyoo ndax bët dañuy bañ mu yem ci loo xam ne day jeexital ci xolam wa innaka in arsalta tarfaka raidan li qalbika yawman at'abatka al manaziru رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعده أنت صابر بت دنكوي يبل موي ورالي خول مي اندي الخول بت موي جيلي سي بيتي كاميرا لا دي دوجال سي بير خول لامين موي генالي سي بير خول الم نجعل له عينين و لسانا وشفتين لامين موي генالي سي بير لا لا سي عثمان واخ نا كي moo ne wax ji lëkku la de lëkku la de waaye nam génne ca xol bala wane kii ne waxam ji daa sedd lool làmbiñ mooy tudd culwaar gi tànk ñeex mi ci biir di génne migrafala bët yi mooy jël ci picc di dugal boo rombee koo wërta xool xool ko defe na jeex na bis boo tëddee ba nga nelaw image bi ñëw indil la ko mu leer naññ fi yow nga jaaxle lool ndax kooka moom dem na nga sonal sa bopp loolu du ful la sëriñ bi maanaam xool boo xam ne yow dalay sonal doo ci jariñu boo moytu sax oto mbëkk la far mu jeex suñ jamono ji moo jaraw moom xoole rek ba kañ sëriñ bi ab jullit du caagin lépp lay xool dañ ko am luñ ko may cib xool danaa ci agsi dégg du caagi lépp lay dégg inna samaa wal basara du caagi lu ne lay fas wal fuaada yëpp dañ koy laaj pour lu ulaa'ika kaana anhu mas'uula borom nee ne bu leen dugg ci kër yi nga xam duñ seen i kër lu may da ngeen a yëglu taxaw ci bunt bi yëglu xoolal baat bi ñu jëfandikoo xataa tasta'nisu xam nga boo taxawee ci ab buntu kër te kenn joxugu la ndigal dangay ngay wéet si wax sa nekk danga nga soxla uns ku yëg ne yaa ngi nga nuyu waa kër gi bu dee suñ jamono ji mën ngaa am loo bës fii loo ayut ndax yëglu loolu yëglu la ba tey wa tusallimu ala ahliha borom bi neen loolu moo gën ci yéen zalikum xayrun moo tax sunu kër yu njëkk ya daa amoon li ñuy wax mbañ gàcc amatu ko nag léegi maa gisatuma ko boobu kër yu bare bëri ci sunu kër ya amoon na mbañ gàcce woo xam ne boo taxawee doo janloo ak waa kër gi xam nga kër moom wax dëgg yàlla buñ bu dee kër la ña fa nekk am nañ sañ-sañ ci woyaflu bu fekkee da nga ñëw rek faraax dugg boo muy tax gis loo xam ne gis man de waxuma la kër waaye mbedd yi dong laa wax du ma dëkk bi nag naan ndakaaru waaye mbedd réew mi la moom sañ bi doo xam fooy xool ak foo dul xool maanaam doo xam lan la ñii ndax ay doomi julli lañ léeg-léeg nga loolu ngay laaj ñii ndax ay doomi julli lañ col yu bon a bon a bon yoo xam ne kenn mënu wax ni bone nga jàkkaar lu amul guddeeg bëccëg loolu nooy ànd leer fooy jël ak leer bu sotti borom bi subhanahu wa tekki ne su ngeen fekkul ca kër ya kenn bu leen fa dugg lu may dañ leen a jox ndigal bu taxaw ci buntu kër fëgg fëgg fëgg kenn kiw rek nga daan ne ñaaj dugg bu ko def de loolu daa wóor sax buñ la tuumaalee sàcc nag buñ leen waxee ne leen irjiu farjiu ah lii de moom ca salafu saale daanaa gis ko naan ak maa bëggoon ko ne ma farjiu nen laay ji laa amul sens wu ñu wax ma ko amoon na ca salaf ko daan wax loolu naan man laay ji laa amul sensu ñu wax ma ko mooy dellul damaa jàpp tey jii de ku nu waxoon loolu bu ñu yem ci bañ faa jaarale de waaye dañuy yàqu daram moo ne maanaa lay jaay xanaa moofu mu jëm kër ma taxaw ci buntu mu ne ma maanaa delluwaatal magum jëmm xamoon la moo ma tax a jóg yow itam magum jëmm xam nga lan lan moo tax mu wax loolu mu la xam nga nit ñi dañuy xool seen bopp dañ xool leneen dañuy nattal seen bopp te duñ nattal keneen na kaanu ala nas yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun loolu du maamu sëriñ bi yow liñ lay jox moom day mat yow nag la ngay joxe day manqué loolu du sotti wa in qiila lakum irji'u farji'u huwa azkaa lakum moo gën a set ci yéen moo gën a sell ci yéen wallahu bima taamaluuna alim yàlla nag lépp li ngeen di def xam na ko mu tekki ne du am benn bakkaar nag ngeen dugg ci kër yi nga xam ne wala néeg yi nga xam ne kenn dëkkewu ko maanaam barab biti boutique dana duggaale ci biir hôtel yi duggaale nañ ci biir sunu euh, mufassir ba ndeysaan Abbas rahmatullahi alayhi daana wax ne sunu seen classe yi ngeen di dugg nii ci la bokk yaa mataaun lakum mooy maatantafiwuna bihi lu ngeen di jariñoo daa nekk ci biir te kenn dëkkewut barab bi du ngeen am benn bakkaar ne salañ sarax sarax laa bëgg wax ci olof mooy ne sarax dugg ci biir laysa aleykum junaaxun an tadxulu buyutan gayra maskuna fiha mataaun lakum xoolal détails yi yàlla yàlla di détaillé sëriñ bi xoolal ma détails yi ndax am na ñoo xam ne mën nañoo dund ba faaf duñ xam sax détails yi ci alxuraan wallahu yaalamu maa tubduuna wa maa taktumuun yàlla nga xam li ngeen di feeñal yàlla nga xam li ngeen di nëbb tam loolu tam garaaw na ba tey <laughs> loolu tam ba tey garaaw na yàlla li ngeen di feeñal xam na ko li ngeen nëbb xam na ko loolu tam garaaw na waaw xam nga xam li ma xam ngeen yàlla li ngeen di nëbb xam na ko li ngeen di feeñal itam xam na ko lii moo lay jural muraqabatullah mooy xam goo xam ne lii ma muutuwaale borom bi xam na ko wallahu yaalamu maa tubduuna wa maa taktumuun ca baqara da ne waalamu anna allaha yaalamu maa fi anfusikum daa ciy teg rek faxdaru moytu leen ko xanaa fii rek boo fi toogoon ak koo xam dalaa xam te am lum la xamee da ko waggar lool ci jotaay bi donc boo amoon koo xam dalaa xam ci loo ma soon def ay jamono mu di la xool nga di ko xool boo may doon nga changé place sax dem toog fële boo nga ne ma xam naa ngeen baal ma damaa am kii damaa yitte ci bitti xam nga mënoo nekk ndox moom te kat yaa ngi yëg ne borom bi moom xam na sa lépp moo tax nag léeg-léeg am na yu doy waar xoolal nit dugg ci ak kër mu wër ko mu wër ko ne ko caméra surveillée dafay nekk muy jekk laatu toog yi di defaraat waat ndax jàpp na ne boo moytul ñu koy xool feneen te jamono boobu noonu yëgut ne boromam mi ngi jàkkaarloog moom laa taxuduhu sinatun wala nawm xoolal laa taaxuduhu al axdu mooy lu la man gëmmentu kenn mënu ko mënta amul njàmbaar ci kanamam bis booy jéem a amul njàmbaar ci kanam gëmmentu sax fa la lay gën a def la lay def gëmmentu nga xam ne daanaka xamoo lu doon waaye bu ñëwee daanaka doo fi nekkati borom bi waxut laa taaxuduhu sinatu wa nawmun kon day da koy dàq bu bi ijtimaa'ihima waaye dàq ko bi iftiraaqihimaa moo tax ne bii duma laal bii duma laal la wax dajalewu leen dàqa dàqandoo leen déedéet leneen laa taaxudu sinatun wala nawm borom bi nee na qul lil muminina yaxuddu min absarihim wa yaxfasu furujahum dalika azka lahum inna allaha xabirun bima yasnaun yéen ñi gëm yàlla yàlla waxul lil muslimin de waxul lil munafiqin dane lil muminin ñi am iman ci yéen nañuy sajj sajj seenu gis xabda baat bi mu àndal muy min day wane ne du lépp lañ lay tere nga xool ko ndax liñ mayee ci xool mu gën a yaatu am na luñ mayewut ci xool am na yow suñ xool am na lool boo ko bëggee xool dañ laa sant nga wàcce sa gis sajj ko ndax loola daa baaxut ci sa xol bi moo tax jigéen joo xam ne ab jaambur la solowut nam war a soloo yaram wa nga koy gis ca bitti loxo ya tànk ya bopp ba doq ga loos wa ak yu ma mënta tudd dambal sa gis bi neel ñi gëm yàlla nañuy sajj seenub gis wa yaxfasu furuja uxut wa yaxfasu min furujihim de farju mu mën a xat nañ sàmm seeni pëy waaye damm gis bi mu jiital moo lay dimbale ci sàmm gis bi ku mënta damm sab gis doo mën a sàmm sab gis koo xam na lu ne ngay xool rawatina su ngeen jollu fii muy appareil yi yor nii yi moom moo raw moom am na ña nga jaaxaan ci seenu lal guddi gépp fu ñu jógee jàll fa ca def te li ñuy xool dara jëgu ci dara baaxu ci waaye yow ndax yaa ngi xalaat mbaa du malako malako ma du la fekk foofu yow buñ la jëlee foofu fekk yaa ngi doon seetaan lii booy dekk looy dekk wale almaro yub'athu ala ma mata alay faw ñuy suuraale loola te jumtukaay yii li ci nekk ci yàqute dafa bëri li li ci gone yi sax kenn mënatu leen kenn mënatu leen yar léegi kenn mënatu leen yar léegi sa doom ji sa sët bi sa jarbaat bi mu ngi ci biir kër gi waaye bàyyiwoo ci moom xel de waaye yàqu na bu yàgg yàgg yàqu na laa wax ndax xolay baax te xol ba yàqu na xol mooy set te xol ba dafa tëddim léegi قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم لولو مو جنا سل سي يوم من بروم نك ليپ لو نين دي جيب خام نكو ان الله خبير بما يصنعون مو تكي نيغا خام ني اي جيجن لا نيوم تام جيت يالا دي تايم دي في في ني نين مي نون بو ني للمؤمن دوغل دوغل ون المؤمنات واي داف لينا بيرالات لوخو ne waxalat ma itam ni gem yalla ñu jigen ñi wa qulil mu'minat ñom tam neelan nañu sadd seen sañu seen am na koo xam ne sañoo koo xool yenn xool yi góor goo xam ne la yàlla bu mu nekk am turum mbaa mu nekk ku góor am na noo koy xoolee baaxul ci yow nañu saj saj saj seenu gis tey sàmm seeni pay wala yubdina na illa ma zahara minha bu ñu feeñal ci seeni taar nag lu dul la nga xam ne kenn da koo mënta làq foofu itam am na wax yu bëri yu fa nekk yoo xam ne fii du ma bëgg def détail fii ci buntu boobu illa ma zahara minha ndax mooy xar kanam ñaari tënk illa ma zahara minha mooy ndax mooy mbub mi nga xam ne maanaa daa nekk ca kaw lu mu ci mën di doon ci wuute googa la muy tekki mooy dañoo war a suturaal jigéen mooy dañ ko war a sàng jigéen daa war a fegu daa war a am mbañum rus dafa war a xam ne dafa gànjaru lu gànjaru dañ koy làq banque luñ fay denc ay alio xaalis banque lu xoromu la ci mën nag xaalis lañ fay denc laa wax léeg-léeg nga fekk ay gardien ñu toog yor yor yor ay fetal xaalis xam nga lu tax ñu denc moy dafa ganjaru limi def lañ xam moy tabax kër moy wut auto moy nangam moy def li xaalis njëriñam da teew ku ci yor lu bari sax ñu rek la jotaay bi dong bo yoron alal ju jeex bo ñewé kenn wuta leen ko mu taway bo ñaké ñàkkee sëriñ bay ma wut foo toog sopp boo bay ma wut foo toog bay ma wut foo toog kenn kenn yegul la sax loolu yàlla moo ko dogal ci xaalis xaalis noonu la ko yàlla dogale ndegam xaalis la ñuy wutal kër ndegam or or or la wutal fu gànjaru denc ko fa fa kay fa nit fa kay fa jigéen ji nga xam ne moom mooy jur ñu baax ñëpp borom bi nee na bu ñu feeñal ci seen taar lu may la ca mënta ñàkk a feeñ illaa ma zahara minha nañ jël seen muuraay xumuru jamu ximaar la wàcce ko yur xiin fii mooy baat baat xar xar xaru baat xar xaru baat xar xaru baat bii nga xam ne buñ wàccee euh, euh, kii du feeñ euh, kii jaaro yi jaare du feeñ liñ denc liñ denc fii itam du feeñ borom nañ nañ ko wàcc nañ wàcc ala yàlla moo jàngale ni ñuy muuroo yàllaa ko jàngale ni ñuy muuroo wal yadribna bi xumurihinna ala jiyubihinna nañ ko wàccee moo yoore ba kenn du gis lañu takk ndax loolu ci taar la bokk ba tey li mën a fitnaa laate ci la bokk borom bi subhanahu wa taala tekki lan wala yubdiina zinatahunna albatina azina albatina lu mel ne la nga xam ne saa yoo ko gisee da gisaale yaram wa lam ah, jaaro ba yam takk yooyu mooy azina al batina yooyu buñ ko feeñal lu may ñi may waaj wax seen jëkkër illaa li buulatihinna jëkkër mën na ko gis jëkkër mën a gis lépp mu benn yoon wala seen baay aw abaihinna wala seen doom yu góor aw abnaihinna wala seen doomi jëkkër aw abnai buulatihinna wala seeni frère aw ixwanihinna wala seen doomi frères yi wala seen doomi sœurs yi aw bani ixwaanihinna aw bani na wala seen moroomi jigéen ñi xam ne ay jullit lañ la ñoom aw nisaa'ihin wala ña nga xam ne ay jaam lañ ca woon ñu yilifoon leen aw maa ay aymaanuhun wala al toppe yi nga xam ne léegi booy dugg si kër ñu ànd yow te ñoom seen xel te muy mu yemb lool xam dañoo xaw a nitoriku tuuti ñoo nga xam ne yëguñu sax luy ay bànneex ak yooyu ñoo ñoom mën leen bàyyi ñu ñu ñëw ci kër gi aw taabiyina xayri ulil irbati mina mina nisa mina rijaal ñi nga xam ne ay al toppe la ñu wax boo ñëwee ñoo ànd ak yow te xam nga ne ñii yëmmuñu lool mën nañoo dugg ci kër gi waaye duñ bàyyi xel sax ku ku ku taaroo ku taaruwut waaye ku ci ràññee tuuti nag bu bu bu ci de dañuy <laughs> ràññee <laughs> dangay ngay toog ñuy melal sa soxna keneen naan wi si si ni mu rafetee loolu defe la jaadu na man li gën a jaadoo di ko ah, de yow loolu ko xooloo ba mooy la laa yaakaar diw soxnaam si daa rafet loolu loolu mooy lan kan moo la ko xooloo kan moo la ko xooloo ba nga koy waxtaanee ak di ko nettaliwaat feneen ay fiiraange jeex na daanaka rek il ko takk soxna ñëw fekk ay xaritam ci saal bi naan kii mooy soxna si fekk ma nga mel nu tey mu koy mu leen koy présenté dégg nga ne loolu ak fiir nekk na fa ay góori jàmbur nga indi sa soxna ba mu waaj nag day waaj nga ne nga ne mi ngi nii ñu koy xool kaw di ko xool jaaduwut borom bi subhanahu wa ta'ala wala gone yi nga xamne sax ragneegul bay xam luy bànneex ak luy tar ak yoy xamuñu ko ñom tam man ngeena taru ci seen kanam yéen jigéen ñi aw tifli alladheena lam yadharu ala awratin nisa mu teg ci lu doy war te jigéen ñu ñëk ñi daan ko def te lay suñ jigéen ñi ko def jigéen ak anam muy buñ rombu ay góor di yëngal seeni tànk ngir ñu xam lañu làq ci biir wala yadribna alquran mana de bay bàyyi sëñ bi yéen jigéen ñi di leen jàng saar wi wala yadribna bu ñu dóor bi arjulihinna seen tànk yi ngir la tax ñu di ko dóor mooy lan li yulama ngir ñu xam maa yuxfiina la ñu làq min zinatihinna booba nag arab yi dañ daan takk ay téqal ma ci nañ ko daan takk ci seen ci seen tànk yi léegi leneen a am junjul doy na borom xel kenn du fi nekk def ay détails <laughs> xalaatuma ko sax ci kaw suuf si wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal muminuun laallakum tuflihun yéen ñëpp tuub leen dem ci yàlla ji <laughs> laaye wa tuubu ilallahi jamian waxut ayyuhal muslimuun te ne ayyuhal muminuun te ñu ngi koy wax kat madina lañ nekk jóge nañ makka al marhala al madaniya la ndax saar yi bu leen fàtte madaniya la wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuna lu tax laallakum tuflihun ndax ngeen am falaax muy ngeen am texe ndekete kon daa bokk ci liy joxe ak texe mooy tuub yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha borom bi tekki ne ñi nga xam ne nag dañoo mel ne eh, ke Daawuda kan nga xam ne amaguñ ay soxna ñoom tam borom bi ne lañ leen dimbale leen taxaw leen ñu am soxna wa ankixu daaw da baal ma de wa ankixul ayaama minkum jigéen ñi nga xam ne dañoo amagut ay jëkkër itam yéen seen kilifa yi na leen taxaw ñu am ay borom kër doonte sax da leen koy wëral doonte sax dangeen leen di seetal ku baax ma ne loolu amoon na de mm-hmm. Sayyidina Omar gis naa Ousmane di ko gaaral Hafsa Abu Xunays mi ko yoroon daa faat mu gis Ousmane di ko ko gaaral Ousmane ne ko danaa danaa seet danaa seet mu gis say naa Aboubacar di ko gaaral Aboubacar waxu ko dara ba yàgg yonente bi sallallahu alayhi daal di koy laaj ndax demagoon na fenn mu ne ko déet mu ne ko ko dama ko bëgg boole ci sa waa kër ba mu gisaatee Ousmane Ousmane ne ko day nga baal ma boo gisee waxuma la woon dara daa am lu xewoon sëñ naa Abubakar ne ko boo gisee waxuma la woon dara mooy yonent bi daa waxoon ne yonent bi damaa waxoon ne xelam daa nekk ci moom te bëgguma feeñal secret loolu kese moo taxoon ma ma tëj ma tëj sama kàddu li ma mooy aw ko doon wëral Omar ko doon seetal ku baax jamono ji ndax ku seetal sa soxna sa sa doom ndax ndax du ko jàppee maanaam ak kiitu di dugg ci du ak xeeb borom bi nee na nañ taxaw ñi amagut ay soxna ñu am soxna ñi amagul ay jëkkër nañ leen taxaw ñu am ay jëkkër ñi nga xam ne dañoo doon ñu yiwe te bokk ci seen jaam wala ñu bokk ci seen jibéer yi wa saalihiina min ibaadikum wa imaikum bu ñu laytoo ne dañoo amut ñu bari dañ naan dama jëkkagut borom bi nee bu ngeen ñàkkee in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli xanaa war ngeen a dugg léegi normalement aw <laughs> eh, fit borom bi nee na bu ngeen bëggee lay toone damaa yorugut dama koo jëkkoogut maa lay jëkkal man maa lay jëkkal li am solo mooy booy dugg ci soxna na fekk da ngaa bëgg a fekk sa bopp da bëgg a aar sa bopp déedéet du leneen da ngaa bëgg a aar sama fekk sa bopp yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli mu tekki ne yàlla na ko yaatu na yàlla yaana olof nee na yàlla yaana ma wax nga dëgg de wallahu asun alim yàlla ko yaala ko xam la ñi nga xam ne nag ñoom na xëy na laa yajiduna nikaahan amaguñ daal lañ joxe dégg nga ñooñu itam nañu fegu daal nañu fegu yi yi yi nga xam ne ci jaar ba fegu tuddoon nañ ko bokk na ci damu seenub gis bokk na ci muñ bokk na ci woor wóoru yow góor wóoroo tëkkoo wóoru wóoru de sama borom nee na yaa ma'shara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bi sawm fa innahu lahu wijaa ngay wóor ndax sa bànneex bi nekk yow koor gi da koy damm koy freiné ngay muñ tey moytu yenn image yi di ko xool amagoo jëkkër amagoo soxna image yenn yi moytu ko rawatina ci internet bi rawatina ci internet bi am na loolu ku ku ku nekk ci ruq di ko xool bu yàggee tuuti mu am lu mu def ci sa bopp mu xalaat lool la leneen ndax alxaatira mooy yar la ko lu jox da nangam dana yar saa xel mi dana yar saa xel mooy xaatira xaatira aw jiw la bis boo ko supprimé wut fikkara lay doon fikkara muy xalaat lay doon léegi gis nga xalaat bi ndegam daa jóge ci xaatira boo xam ne xabisa la fikkara bi day nekk xabisa fikra bi boo ko fi jëlewul lu muy doon iraada loo namm la léegi iraada boo ko fi jël lu muy doon alhammu da lay tee nelaw bu ko jigoon al azmu mooy boo xee gis di ko def boo xee gis di ko def moo tax léeg-léeg yàlla ci yërmaaneem bala ngaa def nangam dana am fu jaar fu bëree baree bëri wax ne foofu mën nga ko fa sax éliminer del lu bëri del tudd yàlla lu bëri waxambaane yu bëree bëree bëree bëri ndeysaan ay masaakiin lañ ay masaakiin dañ leen a war a taxaw dañ leen war a dimbale léeg-léeg sax ku mel ne imaam am kum seetlu ci biir jàkka ji koo xam ne gis na ne ku sonk daru durus yi la mu laaju ko tuuti ne ko yow moom mm, kii nga sallallahu de moom kii rek laa bëgg kéewuguma de mu laaju ci ñeneen ñi fi faral ñëw ne xanaa yow amoo doom jigéen joo mën a jox sëñ bi kii de seetlu naa ne ba ma jë dem tàmbalee dafi jotaay tafsir ak léegi mësuma ko gis mu rate ko kii de ku ragal yàlla la kii de ku bëgg yàlla la ah man de ku mel nag laa doon xool moo ne salafu saalih daanañ mayee noonu doom daanañ mayee noonu doom seetlu nit ci mbaax seetlu nit ci ragal yàlla seetlu nit ci ak fegu ñu jox ko seen doom ndax lan dañoo bëgg ay sët yu baax dañoo bëgg ay doom yu baax te jigéen ñi suuf lañ nisaaukum xarsul lakum suuf nag faw mu am jiwu bu baax ngir lan wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi wallahi baraana koo xam ne gis nga mu baax lool sell lool boo xoolee cosaan la da ngay gis ne am na lu ca xew ak mbaax nga gis ku yàqu lool ba yafaru fekk na dafa am lu nekk ca suuf kenn ngi ni ci salafu saalix ndeysaan daa am ku gëj a jàng si ci jataayam mu seetlu ko laaj ko ne ko yow de fan yi daa mel ne gëj nga mu ne ko sama soxnaa faatu woon moo tax ma xawoon fee gëj tuuti mu ne ko xanaa bëggatoo seneen soxna mu ne ko ah ku ma koy may man ak ni ma mel ku ma may ku ma may doom mu ne ko néegandi ku ma foofu ñu jàngale ba àggal mu ne ko moo naa boo demee sa kër nga xaar danaa am ku ma la indil ndekete doomu la koy indil doomam bi mu fëggee nee na ma laaj ko yow la kan mu wax ma ko defoon naa ne keneen la ku bokkut ak sama sëriñ bi may jàngal mosuma xalaat ne sama sëriñ bi may jàngal mooy ñëw sama kër gi ndax li ma ko mii ne woon muy këram ak jàkka jalaa ko mii ne woon mu daal di may ndeysaan dugalal soxna si fekk fas na ko ca jàkka ja wut ay seede nee na man damaa wooroon jamono jooya mburu ak diw laa doon dogo waaye daa ko jañ mu dugg ci biir ron dog ndax daay bañ soxna si mburu ak diw la doon dogo kero dama ko jañ mu dugg ci ron lol gi ndax bañ soxna gis ko ma defé na dañ ma indil ku ñaaw lo la yaakaaroon ndekete señ mo dak ci dekk bi kiñ ma indi mo dak ci dekk bi te kooku ñu ma indil kat bur doomi bur soxla won nako ñu gantal doomi bur soxla won nako ñu gantal ma am ay fan bëgg a ne ko gannaaw seet gi ruus na mu ne ma loy jàngi in indi ilmu said xam-xam ba ca saa bàyyi mi ngi ci man boo soxlaa mën naa la koo jàngal fu ngeen di jigéen ñu mel noonu yéen <laughs> la hawla wala quwwata illa billah borom bi nee nag ñi nga xam ne dañoo bëgg a bindoonteeg yéen di ay jaam jàppale leen ñu doon ay gor fa kaatibuhum in alimtum fihim xayra na ngeen jël sax ci seen alal ngeen jàppale leen wala ngeen wayefal leen li ngeen di di laaj wa aatuhum min maalillahi alladi aataakum ngir rek bëgg ñëpp am jàmm ñëpp doon ay gor mu tekki jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg a xegu bu leen leen forcé ci njaalo dañ ko daan def bu njëkk jël sa jaam bu jigéen ab jibéer di ko njaalaloo muy indi alal ji borom it ne wala tukrihu fatayaatikum alal bigaa in aradna taxassuna li tabtaxu arada alxayaati dunia in aradna taxassuna ji amul mafhum tekkiwul ne buñ bëggut a fekk da nga leen a war a fas déedéet waaye alxaalib maxraj alxaalib xaraja maxraj alxaalib mooy loolu moo gënoon a bari jamono jooju moo mel ni ku leen forcé wa man yukrihunna fa inna allaha min baadi ikrahina gafurun rahim yàlla dana leen jéggal ndax dañ leen a forcé ca loola borom bi tekki ne wàcce naa ci yéen ay bir yu leer indi itam ay niral ca ña leen jiitu woon ñoo xam ne lu mel ne lii la dal yow suma Aïcha sunu day Aïcha dalool na leen mel ne Yuusuf su ma ñu mel noonu dalool nag ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين تكن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري فلا جانغ دري فلا جانغ دري يوقد ولا توقد ولا توقد من شجرة زيتونة توقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لا يجي لا يجري لا لا يجري يهدي الله لنوره من يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بوك جولي دي دا فا ام لوني واخ قوة ولا توخلا لا كاي واخ موي فينيتر بو نداو بو جيلي لامبي بترول ياوون خام نين كو امنا ييغي موجي ني دنج كو خام لامبي بترول ياوون nañ jël lii ma yor nii def ko mu nekk mishka mishka mooy quwa xayru naafida mooy benn pox la boo xam ne jàllut lu yett la nii ci miir bi nga xam ne man nga caa dugal bidon bi teg ko ca biir waaye du jàll loolu day tax bu fekkee ne am na genn leer gu nekk ci bidon bi leer gi sukkuf boobu mu nekk da dafay gën a yokk ak leer ndax jëllut borom bi ne ne boo xoolee nga bëgg a joxe niral bëgg a joxe misaal ci leeram gi muy def ci xolum ab jullit dafa mel ne benn mishka mooy poxlas ndaw soosu nga xam ne fiiha misbaax misbaax foofu tekkiwut lampe pétrole bi waaye mooy li nekk ci mees gi di tàkk li leeral ci biir me mees ci mees gi fi jeexee la fay leeral loolu mooy misbaax mooy lumière bi loolu mooy misbaax misbaax boobu lan moo ko lan moo ko wër lan moo ko ngaw al misbaaxu fii zujaaja zujaaja boobu nga xam ne moo wër looluy tàkk ci biir nees boobu dafa leer ba mel ne biddiw boobu nga xam ne daa mel ne dur bu kenn nga jàng dur riyul yaa ngi ko askan ci ad dur wal yaaquut mooy ci set ci leer ka annaha durri su ko defee nag mees googee daal sëppe ci bu doon misaal pétrole boo xam ne si zaytuna la zaytuna bàyyi ko ci garab goo xam ne moom la ñuy wooye zaytuna maanaam diw gi nga xam ne moo moom ci la mees gi sëppee ba nga xam ne boo tegee taal day tàkk man diw gi nga xam ne moo nekk ci mees gi laa bëgg a wax ne diw googu zaytuna la olive garab la tawaqada wala nga jàng tuuqadu min shajara min zayti shajara nga fi nattale mubaaraka zaytuuna badal la la sharqiya du garab goo xam ne daa nekk fi tolloog bu jant bi génn nga xam ne bu jant bi génn képp lay am ci moom ak leer ni ko sharqiya de nga xam ne bu jant bi génn bu bi génn képp lay leer wala xarbiya nekkul itam foo xam ne bu jant bi di so rek lay am leer waaye dafa nekk ci aadalul amakin nga xam ne tout le temps ngi am leer tout le temps am leer diw gi nga ne mooy pétrole bi ci misaal nga xam ne ci lañ sëpp mees gi diw gi daanaka kaw naar leeral yakaadu zaytuha yudii donte kenn kosu teg ci walaw lam tam fasu naar suñu kosee teg ca mu nekk nuurun ala nuur loolu mooy lan mbokk jullit yi la ilaha illa laa ilaha illallah suñ borom yàlla ku mën a misaal la gis nga kuwa boobu nga xam ne si moo nekk ca miir ba muy benn poxla bu ndaw moom la ñuy nuróoleeg dënnu jullit nu Qayyim rahimahullah mooy wax mishkaat bi mooy sadrul mu'min sadrul mu'min mooy dënn bi xam nga dënn day féete kaw dënn boobee nag fiha misbaax mooy nuurul iman nuurul nuuru maarifatillah mooy mooy mooy leer gi nekk ci xolub ki gëm yàlla mooy lay tàkk noonee loola nag daa nekk benn zujaaja zujaaja bi mooy sadrul mumin fa innaha la taamal absaaru walakin taamal qulubu lati fi sudur mooy sadrul mumin ibnu qayim rahimahullahu taala nee na lan moo tax yàlla jël mishkaat niroole ko ak sadrul mumin jël zujaaja nuróole ko ak qalbul mu'min nee na xol xolub jullit daal nuróo ko zujaaja ci ñetti yëf fi riqatiha wa salabatiha wa safaiha nee na xolub jullit day nekk raqiq loolu moo tax muy yërëm loolu moo tax muy ñeewante loolu moo tax muy jooy waaye salabatiha fi daatillah bu jàkkaarloog noonu yàlla nga xam ne kii day mel ne bokkut ak ko doon jooy fële day dëgër wa safaiha mooy day set boo takkoon ay weer nii te weer yi dafa taq li ngay gis lépp day taq li ngay gis lépp day taq mu ne yakaadu zaytuha yudiu mooy fitrab julit daanaka xaw na ko wan dëgg doonte amagut wax yu su amee wax yi nag mu nekk nuurun ala nuur moo tax ñu bëri buñ jaxasoo gut ak ñi nga xam ne dañuy yàq ay pas-pas da nga leen di fekk ak seen fitra ñoom demal ci àll bi baykat yi nga xam ne jaxasoo wuñu kenn lu xew ñu ne yàlla lu ne yàlla amuñu leneen amuñu keneen lu ne lu xew ñu ne yàlla ñooñu nag bu leen fa wax yu fekkee day nekk nuurun ala nuur ndax dangaa fekkoon seen fitra mu baax ñu bëri nag dañoo yàq seen fitra kullu mawludin yuladu ala al fitra ñu bëri dañuy nekk ci mujtama boo xam ne mujtama bi mooy day yàq fitra moo tax léegi nga dégg koo xam ne li muy wax non lii lii kii fitra bi dafa yàqu moteur bu yàqu laa la wax yàlla xam na ne am na ñoo xam ne seen moteur yi moo yàqu xam lu ko yàq mooy dañ caa def lu bokkut ak li yàlla bëggoon ko ko ci def oto bi ngay war su dee tubaab bi daa wax ne gasoil lañ ci war a def nga dem ci essence yàqu yàqu lay def ñun ay motoori yàlla lañ wax yu képp lañ mën a def lépp luñ sol ci noonu te du wax yu dañuy gaaree duñ dem dañuy yàq ndox mii di jóge asamaan moog wax yu ñoo bokk ñu bàyyi ko ndox moomu mooy saxal gàncax gi ñuy lekk am déet li ñuy naan fu muy bàyyi ko lii jëm sunu yaram yii muy li ñuy lekk di gàncax gi ak li ñuy naan lépp asamaan la jógee li ñu waral jëfandikoo ci sunu ruu yi tam mu di ko setal wax yu la war a doon amul waa bàyyi diw daa gént fee nangam daam ku ko feeñu fee jox nga déedéet nun soxlawuñ yooyu liñ soxla mooy du jóge ci muhammad sallallahu alayhi wa loolu moo piire loolu moo set ñaari wan ku baax daan wax ne ñaari wan dong fi xel ndox mu baax mooy won bi nga xam ne boo ubbee day jógee ci alxuraan di li ak bi nga xam ne boo ubbee day bàyyi koo fan ci sunna di xelli yéen beneen wan ndox ma baaxul beneen wan laa wax amul ndox mu baax ñaari wan moo fi xelli ndox mu baax mooy wanub alxuraan ak wanub sunna waaye nag gis nga leer gi ak li muy leer leer xoolal maanaam maad maad maanaam anaasir yi joxe leer ci biir laay ji almisbaax azzujaaja kawkab du riz zaytuna lépp leer la waaye ànd ak loolu nag yahdillahu li nuurihi ma yasha li muy leer leer du leer ci ñëpp de te ñam bëgg mu leer ca ñoom la ko yàllay leeralal walakin jaalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min ibadina moo tax ci ci saar wi nee na laqad anzalna ayatin mubayinat daa ci teg ne wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim maanaam leer gi leer nag léegi nag kii lan moo tax min gisul lii lan moo tax tawxid ni mu setee ni mu leeree waa ji ci moom lan la kii muy jaawale yàlla mi muy jaawale lan la fekk du dara yàllaa ko leer leeralagul rek yow yow avant ngay xam noonu nga meloon di kadalika kuntum min qablu fa manna allahu aleykum yow loo ci def fa manna am nay jamono ni nga réere woon métti na am na jamono yi la doon mer loo jurul mer nga dem ba yàgg ngay xalaat ba yàgg ngay ree nga naan ndega mas naa mel nii yërëmal nit ñi ñaawante leen ñaana leen yàlla te nga nooyal fa bi ma rahmati min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalid al qalbi lan faddu min hawlik la jot anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amr ñeewante leen doomi aadama yi docteur yi ñeewante leen borom tawat yii nii xanaa docteur doo ñëw maanaam mu lay ngàdd naan lu lan moo tax mu dal la lii <laughs> man de docteur bu ma def loolu keroog nga may gëj a gis waaw nooroon def ba feebar yow kay fajal rek ndegam fajkat nga fajal rek alxuraan ak na koo xam ne moom ngay jàngale yam ci wallahi dangay ngay jékki am ñu wér ci sa jataay boobu te te te léeg-léeg sax duñ la ko wax dañuy jékki-jékki wér yan waaye daa jóg ba yàgg mu ne mu ñëw ne man day maa ngi wax lay ay la yéwén day daaw ma julli di jàpp daaw ma julli di jàpp li ko waroon itam mooy dafa am lu ñu ma waxoon ne ma soo ko dee wax du jar ngay jàpp hmm. waaye tey jii da jàngale xadis boo xam ne ci umdatul ahkaam yonent yàlla xam moo ne laa yaqbalu llahu salaata ahadikum ida ahdasa xatta yatawadda mu wóor ba ne li Muhammad ak wax ndax da ko fekk fa mu nekk daa jàngale rek daa leeral rek soo leeralee ku yàlla bëgg mu leer fi moom dana ko leeral am na ñooñ nag boo doon leeral junni leeral du leer fi ñoom day mel ne saalum saalum ba muy jàngale laabitul afaal ngeen baal ma nii rek la tudde woon moo tax ma di ma nekk loo noonu laabitul afaal xam nga bu dee bi ñuy jàng fi Sénégal dafa dafa amut ay dollent yi nekk murtani yi murtani yi dafa am ay dollent yi ñu dolli mu ne bi faalal al fi'lu du tajridi aw faula yaati yow maksuura aynin aw ala faula loolu moom leer na fi moom ndax yàgg na koo jàngale waaye bay doo ca topp tadifu saanin aw annal yaa axiru aw aynhu kaluqooy qallama loolu moom tey la mu di ko jéem a leeral leeral leeral leeral leeru mu wax dongay ne leer naa ñu ne ko leeru mu ne foogoon naa ko faa faa ko déggut <coughs> man maa ko déggut comme déggoo ko koy bàyyi ñu ko dégg jàngale ko faa ko déggut nit lu mu yurut du ko joxe jàngalekat ba daa wax dongo ba waxal yiif mu ne yiif mu ne ko waxuma saa gos gi boog nit ñi laa wax alif la ko bëgg jàngal na bàyyi nit ñi man alif ñu waxal ko lu amul doo ko joxe li gën metti ci sun réew mi nag mooy ñoo xam ne dañuy jàngale ta matuñu ay sëriñ dañoo war jangi jàngi ñoom dañoo jangi. yegul dara ma ngi fi ko xamne ma ngay jël lay ñu nek suratul kafi wa kadalika a'tharna alayhim li yaalamu anna la haqq wa anna saata la rayba fiha id yatanazauna baynahum amrahum fa qaalu bnu alayhim bunyana rabbuhum alam ma fi rabbu alam hal alladhina ghalabu ala amri mu ne jàkk dañ fa wara wutal banel lol lol lay ñu lay wax da ne lol sax da ba féex daal di féex loolu nag naan daa baax qaala alladina xalabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida xoolal loolu mbokki jullit borom bi leer gii mu doon wax bu ngeen ko dee wëri fan ngeen koy fekk ndax ca marché ba la nekk ndax ca cinéma ya la nekk ndax ndax ndax fii buyuut adina allahu an turfa foofu ngeen koy fekk ma nga ca biir jàkka ya jàkk yooyu nga xam ne yàlla moo joxe ndigal moo santaane ñu yëkkati leen rafan hissiyan wa rafan maanawiyan ñuy tudd ca biir tur yàlla wa yudkara fiha smuh di fa sabbal yàlla guddi maanaam suba cuuy ak takkusaani lahu fiha bil ghudu wal asal ñan ñoo ko fay sabbal man de xam naa ne bokk guma ci rijaal yooyu moom yàlla xam ne buñ ne rijaal rek damay tiit amin rijaal ay góor dëgg yoo xam ne laa tulhiihim du leen fàbbi tijaara am yaxantu wala bay un wala njaay du leen fàbbi lan an zikrillah ci tudd yàlla luñ jaay jaay ci marché buñ tëggee allahu akbar bàyyi lañ doon def du leen fàbbi ko wa iqaami salaa taxawal julli wa itaa zaka lu tax nag yaxaafuuna yawma dafa am bis bu nekk seen kanam ñu koy ragal bis boo xam ne bu yegg see xol yëpp wëlbatiku gis yëpp wëlbatiku def xaj yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar lii dañ koy def ngir fa muy mujj mooy li yajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab borom bi nee na ñu wedd yàlla seen jëf yi bu mu la yéem jëf yu baax yi ñuy def di gasi seen ak di dafi yooyu bu mu la jaaxal bu mu la yéem ba tax nga bëgg leen naw ñooñu seen jëf yee ngi mel ne njonoox ci digg naaj wi bu tàngee digg tëli bi da nga si gis lu mel ne ndox man daanaa ko gis ba ma nekk ca ci daara ja waaye gisatuma ko léegi walladina kafaru amaluhum kasarabin bi qiya qiya jamu qaa la mooy ci pàkk la nekk nga xam ki mar day defe ne lee ndox la yahsibu zamanu maa hatta idha jaahu jaahu damit li lay delu moy fim makanu sarab moy fim fim fu don sen seen sarab bi bu ñewé la ma jidu cheya mbooleem yi ñu doon def bu démé ci kanam yàlla lépp haba an man mansoona lay doon wajad allah indahu fa wafaahu xisaabahu wallahu sariul xisaab wala nga jël benen niral aw ka zulumat niral bi ni dafa niral lool benen niral be nga xam fess delaki leer aw ka zulumaat wala ay lëndëm yoo xam ne ñu ngi nekk ci baxrin lu ji géej gu am lëgg géej gu goo xam ne fii ci kaw géej gi ay duus a fa nekk yaxshaahu mawj duus yooyee am na yeneen duus yu ko féete kaw yaxshaahu mawj min fawqihi mawj amaat yeneen niir sahaab zulumaat ba'duha fawqa ba'd hiu foofu lëndëm la léppi lëndëm la foofu boo fa nekkee boo génnee sa loxo bi sa doo gis ida axraja yadahu lam yakad yaraha lu mu tëje laaya yàlla joxul leer doo am leer wa man lam yaj'al illaahu lahu nuura fa maa lahu min nuur waa Sénégal da nga am courant foo koy jële yàlla kum joxut courant moo koy joxe wa man lam yaj'al illaahu lahu nuura fa maa lahu min nuur borom bi subhaanahu wa taala waxtu bu jeexee nañ ma ko daal wax mu ñëw nag ci lu jëm ci wàllu sàbbaal yàlla mu ne xanaa seetluwu leen yéen doomi aadama yi borom bi ñi ci asamaan ñi ci suuf njanaaw yi nga xam ne dañuy dayyaarlu dayyaarlu mooy ni njanaaw di naawe xam nga njanaaw daa am nu muy naawe day yëlëb laax yi di ko yëlëb yàgg rek mu taf dem saafaat mooy baasi faat ajani xatuhun na mooy ndax loo muy dayyaarlu colo wa tayru saafaat yooyu yëpp borom bi neen ngi sàbbal yàlla te kenn ku ci nekk xam nga nooy sàbbal yàlla ak nooy taxawee ci ni la yàlla sa borom sant kullun qad alima salaatahu wa tasbiha kon yéen doomu yéen a fi yéen a waaye asamaan suuf lépp sax far wa in min cheyin illaa yusabbihu bi hamdi da ngay rus sax lépp lépp ngi sàbbal yàlla doomu aadama yi nga xam ne ndeysaan daa moom rek moo moo nekk ci yeneen borom bi nee na lépp loo xam ne yéen a koy def yàlla xam na ko wallahu alim bi maa yafaluun mu teg ci ne nguuru asamaan ak suuf lépp yàlla ko moom tey lépp fa yàlla lay mujj walillahi mulku samawati wal ardu wa ila allahi al masir am na lañ nekk am nawet lii yàlla wax yomb naa misaal alam tara xanaa gisoo ci sa bët ne anna allaha sa borom yàlla yus ji mooy di màng dara muy dem ndànk mooy asawqu birifq dangay gis aw niir fële gisaat aw niir fële gisaat aw niir fële nga gis niir wii yàlla di ko màng muy dox ndànk yus ji saxaaba ba yàgg mu boole ko ak wële summa yu allifu bayna ñu daa di rankaloo summa yaj'aluhu rukaama ni suuti ndeysaan ñu ne xiin wa sàqi na loxo ndox mi tàmbalee wàcc fataral waddaxa yaxruju min xilaali waaw la ci nawet lañ nekk jamonoy nawet moom da ngay gën a yëg yàlla subhanahu wa taala ci yàlla ni mu taxawoo jaam ñi yàlla ni mu yore jaam ñi buy taw buy taw xalaat leen ci buy taw ndox mi kan moo ko moom ñun li ci saxee ñan ñoo ko moom yéen mataa allakum wa li an'aamikum su ngeen tiimee aw ñam di lekk bàyyi leen xel fa yanzuru al insanu ila taami inna sababna al maa sabba thumma shaqaqna al arda shaqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba lépp mataan lakum wa li anamikum alam yaraw anna nasuqu al maa ila al ardi al juruz fa nuxriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'aamuhum wa anfusuhum afalaa yubsiruun lan moo leen dal lu dox seen digganteeg bëgg yàlla lu dox seen digganteeg màggal yàlla lan la kenn xamul lu mu doon xanaa seytaan xanaa feebar borom bi subhanahu wa taala nee na damay wàcce mu bàyyi ko asamaan ay montagne yoo xam ne montagne yu lay doon. léeg-léeg mu am fu mu wàcc gàllankoor fa dara waaye léeg-léeg ma dëddale loola ak beneen barab du fa àgg léeg-léeg sax mu def ko ci taw bi ngay seen fële muy taw nga taxaw fii ma def naa ko ba tey yéen daf def ngeen fii ngay taxaw nii muy taw fële fa yusibu bihi man yashaa'u wa yasrifu an man yashaa' kooku mooy borom kaw nu bi yàlla mooy borom kaw nu bi de wallaay kuñ fi wax yaa moom nangam moom mosu bopp sax bay moom leela dara ci sa bopp moomoo ko moom dara kenn moomu fi dara ab dof de waxoon na ma ko ab dof daa ñëw saa daara ak timis man naka ab dof la am di wàlla wax wax du waxe dof moom nee na ma yaay xaadi ma ne ko ne man ñëwoon naa fi ñu ne ma nag ak génn waaye leen daal laa la bëgg a xamal suuf sii kenn moomu fi aw fepp daane luñ fi wax nit yaa ko moom say moroomi jaamal ko wax waaye yàlla waxulu daane bëriñ dem yoonam mu ne ko ah, yow de dañ laa yónni xam naa ne <laughs> li ngay wax de xam naa ko <laughs> li ngay wax xam naa ko waaw mu ne kuñ na fe yaa moom nangam say moroom yi jaam la ko wax waaye yàlla waxulu walillahi mulku samawati wal ardi wa ila allahi al masir borom bi nee na leer googu nekk ci melax yooyu daanaka xaw naa yóbbu ay gët yakaadu sana barqihi yadhabu wala nga jàng yudhibu al absar mu tekki ne yuqallibu allahu al layla wan nahara yàlla mooy wëlbati guddi gi ak bëccëg gi nu ko neex léeg-léeg guddi gi sedd léeg-léeg guddi gi tàng léeg neex léeg-léeg dem bëccëg gi ñëw inna fi dalika la ibra li ulil absar ne waaye kéemtaan duñu mën a xalame ci waroom xel yi ñu am xol yu def dar mi ngi fi laay ji lay taxaw insha taala ñu baal ma ko bi nee na wallahu xalaqa wala nga jàng wallahu xaaliqu hamza kisaay loola jàng wallaahu xaaliqu kulli daaba yàlla nee na lépp luy jukkat ci kaw suuf maa ko bind ci lan laa ko bind min maa ci ndox lu ci nekk nag ak ndox mañ ko bindee am na ci yoo xam ne ci seen biir lañuy doxe lu mel ne jën lu mel ne sax lu mel ne jaan dañuy watatu fa minhum man yamshi ala batni da koo jiital ndax mooy gën a yéeme am ci loo xam ne day doxe ñaari tànk yooyu mu doon mooy nun mooy nun waaw mooy nun wa minhum man yamshi ala rijlayn ñoo xam ne ñaari tànk la ñuy doxe am ci yoo xam ne ñeenti tànk lañuy ñuy doxe wa minhum man yamshi ala arba nga ne ko foofu la yema mu ne am na leneen lu ngeen xamut yaxluqu llahu ma yasha am na yeneen yu am yeneen yu ngeen xamut sax far benn yoon léeg-léeg nga seetaan documentaire gis yoo xam ne dalay wóor ne lii moom tey nga ko mën a gis mhm. te mbokk ci mbindeefi yàlla yi loolu laay wax dama ne leen ñun amul lenn lu ñu war a jaay nun ak ñoo bokk dëkk nun ak melentaan yi laa wax nun ak xar yi nun ak bëy ñoo bokk fenn fuñ dëkk kenn ëpp sañ-sañ sa fii ci addina ñun ñëpp dañu fee dëkkal kenn na yor mu yàlla wa ka ayyin min daabatin laa taxmilu rizqahaa rijrom allahu yarzuquhaa wa iyaakum ni mu yore bëy yore ko xar yi la nu yore ñun yàlla noonu la noonu la nu yore te benn bu ci nekk ci yooyu am na gàpp boo xam ne bu jotul du dee donte melantaan wa daa nekk marché occas donte daa nekk sàndaga ca biir mbooloo ma gaa yi dëggaate bu fekkee deem jotagut kenn mënu koo dëgg ba mu dee kenn du ko dëgg ba mu dee da nga naan xanaa yow gaaw a dee la waaye xanaa ci yow la gaaw a dee lu ci deewam jotagut du dee ndax nafsu la wa ma kaana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaaba mu ajjala mbokk yi borom baa ngi jeexal nee na inna allaha ala kulli shay'in qadir ngeen baal ma jeneen laay ji laa bëgg a taxaw laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim borom bi nee na wàcc naa ay laaya yu leer nañ ñi waaye nag sa borom yàlla day mooy gindi ku ko soob teg ko ci yoonu jub xocc yàlla na nu yàlla gindi yàlla na nu yàlla gindi yàlla na yàlla gindi yàlla yàlla gindi ci àddina ak alaaxira wallahu yahdi man yashaa'u ila siraatin mustaqim àllaaxira bu ñu fa demee dañuy soxla ku ñu gindi ñu jaar ci kow siraat jàll soxla ku ñu gind sax suñu kër arrafaha lahum arrafaha lahum xam ne fee nga dëkk loolu nag yàlla na ko yàlla defal saar waa ngi noonu mbokki jullit yi jamono ji ngeen ma ci xoolloo dama ci xool di ci xool di ci xool ba yàgg ma ne ñu dimbali dimbale nañ ma yàlla xam ne dimbale nañ ma ndax mënatuma xool ci lu dul sóoratu nuur sóoratu nuur day joxe nuur yu bëri yu joxe nuur da cee nekk sajji ab gis ba xooloolu araam day joxe lan nuur tuub dellu ci yàlla day joxe lan nuur wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun topp yonente bi salaa sallam day joxe nuur wa in tutiuhu tahtadu yu joxe nuur moo fees ci biir sóoratu nuur yàlla xam na ko boo ko def seetal leer googu lañ soxla su ko jullit xasee am rek jeexal na kenn mënatu koo réeral wax naa ko sëñ bi léegi aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jaalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaas nuur boobu ko yàlla sa borom joxe nit buy dox ak moom ci biir mbooloo mi day xàmmee day ràññee ñoom sax dañuy defe ne ràññewu fekk xam nga leen bu yàgg ndax ci seen xam seen waxee nii ak seen jëfeen ci nga leen di xamee yàlla du dut baaraanaan diw diw diw daan wa minhum lay wax mhm. nga xam ne nga mën a xam lu bëree bëree bëree bëree wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu